asalaamaaleykum mbokki xar ñu seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV tey ñu dajal kenn rek ci kàngamu euh, politiciens yi nekk fii ci biir Thiès muy euh, Babacar jàlloo ñëpp gis euh, li nga xamante ne rek nekk na taxawaayam ci terrain bi Babacar dañu lay bàyyi nga nuyoo ak mbokki xar yi ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV. merci jërëjëf Omar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Thiès Info di nuyu suñu mbokk jullit yi. amaana muy aussi suñu mbokk chrétien yi ñuy nuyu kilifa diine yëpp di ziar di fi fiddiluwaat ko leer ci ñëw bi ngeen fi ñëw tey ji alors Babacar yaay suñu invité suñu émission politique ñu bëgg rek nga wax ñu tey kan mooy Babacar Diallo sa présentation. waaw voilà merci Omar maa ngi tudd Babacar Diallo maa ngi dëkk fii Grand Thiès euh, dëkk Thiès Ouest ma représenté le directeur général de la poste monsieur Pape Siré nekkal ko fii ci gox bi ci Grand Thiès nekkal ko aussi ci Thiès Ouest. nekkal ko ci Thiès nekkal ko ci Thiès aussi. très bien alors Babacar dañuy ñëwaat parce que dañu gis depuis campagne yi weesu ba léegi gis nañu Babacar Diallo nekk ci biir Thiès euh, di politique maanaam nekk ci groupement femmes yi lan moo lan moo waral loolu. waaw Omar laaj nga ma laaj boo xam ni laaj bu neex a tontu la ndax euh, man ku ma xool xam ni politique yàgg naa di ko def waaye li ma gën a songu may def politique mooy le directeur général de la poste monsieur Pape Siré pourquoi parce que Pape Siré Dia man ak moom dafa am loo xam dañ ko sëkk te sëkk biñ ko sëkk nekk na loo xam ni du lu tuuti comme du lu tuuti nag mu am ay ndombo tànk yoo xam ni daf ma ko yàgg dénk ma nekkal ko ci di ko ci doxal boobu ak léegi doxal boo xam ni doxal bu am solo la ci biir doxal boobu depuis ma tàmbali ak moom ma nekk ci ci groupement famille nekk ci ci association yi nekk ci ci wàllu nawetaan nekk ci ci wàllu sport nekk ci wàllu làmb ak bépp activité boo xam ni activité la boo xam ne activité sociale la amaana muy activité aussi activité développement la ma nekkal ko ci di ko ko ci doxal ci biir commune bi di ko ko doxal en même temps aussi ci biir département bi doxal boobu ma koy doxal moo tax tey jii yaakaar naa ni euh, kenn dootul présenté kenn directeur général monsieur Pape ja kenn dootu ko présenté jàmm moo tax nit ñi ànd ak moom ci ànd bu am rigueur kon ànd boobu ñu ànd ak moom ànd la boo xam ni tey ku ne gis nga ci sa bopp muy wàllu esport muy wàllu euh, nawetaan muy wàllu euh, département bi euh, jigéen ñi nga xam ne ñooy avec yi muy wàllu mouvement yi muy wàllu association yi muy wàllu même GIE yi muy wàllu même groupement yi nga xam ni dañuy laaj financement yi et cetera yépp si la di ci ànd ak ñoom ànd ci ak man ma di ci liggéey ci wàllam ci wareefam kon depuis boobu ci loolu la ñu ànd ak Siré mu nekk nit koo xam ne si in nit la koo xam ne ci incontournable la fii ci Thiès. alors euh, très bien yaa ngi wax ni Siré nit ku euh, il est incontournable fii ci biir Thiès euh, bëree na ci ñi nga xamante rek ay woy politique leen dañuy né dañuy poser wu question moy Babacar Diallo mu ngi massifié di dem ba ci bir département Thiès dem ay tianaba ak yenen gox yo xamne rek dafa dem est-ce que ñooñu ñoo la fekk ci wala yu ya len fekk ci non ñoo ñu ñom ñoo ñoo fekk ci ñu lu tax ñu fekk ci moom mooy dañoo gis liguey bi nga xamni ni maa ngi koy liggéeyal DG Siré beneen bi mooy kan dañoo gis Siré Dia liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci biir Thiès beneen bi mooy dañoo gis Siré Dia ndimbal bi nga xam ne mu ngi koy def biir Thiès gisit Siré Dia emploi yi nga xam ne daf ko créé ci biir Thiès en même temps aussi ci biir département bi yamul sax Thiès mais créé na ko presque ci Sénégal gi yëpp loolu moo tax ñoom ñu xool ni ki nga xam ni moom mooy Siré Dia yaakaar naa moom mujjee moom mujjee ñëw Siré Dia ku ko dégg xam ne Siré Dia moom mujjee ñëw waaye li mu fi def def na fi loo xam ne tey jii ministre dëkk na fi député dëkk na fi directeur de société dëkk na fi waaye kenn defu ko ci c'est le Siré Siré moom moo fi ñëw ci ñëw bi mu fi ñëw def fi loo xam ni amul kenn koo xam ne mi ngi fi di ko fi def. ci loolu la nit ñi sukkandikoo xam ni man maa ngi ànd ak DG Siradia maa ngi ànd ak Siradia di ko liggéeyal ñoom ñoom ñoo ñëw ànd ak man ngir Siradia jëf jooju muy jëf ci biir Thiès ci biir région de Thiès ci biir département de Thiès. alors mu nekk nekk da nga déterminé pour rek yóbbu liggéey bi fi nga xamante ne foofu nga bëgg mu yegg ko muy massifié li nga xam ne mooy parti APR ci turu euh, Pape sirédia alors bëri na ñuy wax ci Thiès ni politique bi dafa tagga tembe fii ci biir Thiès yow est ce que da ngay séddoog ñoom xalaat boobu déedéet xam nga ñuy wax euh, Omar dañuy wax rek gën nga politique dafa xaw a doy waaye doyul ndax li tax doy waar mooy boo xoolee Siré Dia depuis président Macky Sall jox ko ndombo tànk yi ma ko jox kenn dégg ko mu coow kenn dégg ko mu wax dafa jël engagement bi nga xam ni moom la ko président jox mu di ko doxal ndax président boo xoolee. président Macky boolewu dara ak wax li muy def mi ngi koy def li muy jëf mi ngi koy jëf soxla yi muy faj mi ngi koy faj te boolewu dara ak wax nit ñi ñooy nekk di wax rek rythme bi président nekk rythme boobu la Pape Siré Dia jël di ko doxal gis nga Siré Dia tey sànq laaj nga ma question boo xam ni question bu am importance la mooy que ni lu tax nit ñi di daw di ñëw ak mouvement yi di daw di ñëw jigéen ñi daw di ñëw di ma wut si segam ñoom ñoom mooy Siré ja man moom lay àndal di politique ñoom ñu daw ñëw di ma wut si kon kay Siré am na njëriñ kon njëriñ bi ko bi Siré am tey Thiès Siré daf ñuy ñëw chaque weekend day ñëw su ñëwee def ñu teg ñu toog mu tegal ñu planning planning bu ñuy tegal ñun planning boobu la ñu nekk di ko doxal chaque weekend dañuy dem am foo xam dañu fay dem di ko doxal soit mu nekk ci commune bi soit mu nekk ci département bi te li may wax ni du man kese. am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi doxal feneen encore man li ma war maa ngi koy def ñi si des ñi leen war ñoom ñu ngi koy def kon moom mi ngi doxal li mu war a doxal ndax daf ñu ni carrément jaru xuloo jaru xeex ndax lu tax mooy moom président moo ko ñor te li tax président ñor ko mooy que dafa am ndomba tànk yu ko président dénk te ndomba tànk yooyu moom la fas yéene doxal ko ba président ni mu ci amee ndam bi nga xam ne moom la ci soxla fii ci Thiès. alors kon jàpp ngeen nga léthargie amul. ci wàllu politique fii ci CES APR benn bokk yaakaar. waaw amul ñun ñëpp nekk bokk nañ ndey bokk nañu bàyyi dafa am loo xam ni tey jii euh, ñiy wax dañuy wax rek gis nga ñiy wax dañuy wax waaye dama yaakaar ni seen xel dafa dellu dafa dellu siwagul ci ñoom ndax parti tey jii parti APR amul ben problème ben problème amu fi parti APR bu amoon problème. Siré Dia jox nañ ko fi euh jok euh, tedelis departemental. te biñ koy jox tedelis de départemental mais dafa wo ñep and ak ñep togo ñep ñu wax ñu deglu ko xalaatam mu deglu len sen xalaat mom mu wax ne li la fasiyene doxal ndax président da ko jox tedelis te bima ko joxe tedelis départemental ku ci nek le waxtan ak ñom jëfe nañ ko ci seen gox ñii ñu ngi ko def def jëfe ci commune bi ñii ñu ngi ko jëfe ci département bi boo xoolee li tax Siré gagné département bi mais am na lu tax ki nga xam ne moom mooy sa Seck mais Idrissa Seck ñëpp xam nañ ni département bi dafa daan gagné à 100 pour cent waaye xoolal ren xoolal set fois ci gagné ci département bi amu fa dara. commune bi la doon yaakaar te commune boo xoolee rey nañ ko fi a à à à à quatre vingt quatre vingt soixante dix pour cent rey nañ ko ci commune bi kon moom dooleem wàññeeku na te doole boobu xam nga moo ko wàññi Pape Siré Dia ndax président da ko woo ne ko dinaa la dénk loo xam ni yow laa ci am yaakaar te yaakaar boobu ko président dénk tey jii mais tasul yaakaaru président ndax gañe na département bi tey jii xoolal député yi nga xam ne ñoom ñoo falu ñëpp xoolal. imagine-toi kon kooku dafa nek ko xamni tay tey neexu la contre fii ñëpp xam nañ ni Siré Dia moom moo fi nek même même même même sax ñi nga xam ñom ñom ñom ñom ñom la bokal parti fi ñu nek ñu yor ay poste de responsabilité xam nañu ni Siré Dia li mu mën Thiès li mu mën ci département bi amul kenn ko xamni moko fi mën nako fi fi fi ci fii ci Thiès fii. ëpp am ci opposant yo xamni gis nga ñi wax dañuy wax rek waaye ñu xam nañu lu bari. dañoo noppi mais am na ci opposant yoo xam ni jël nañ fi fukki nag ak ñaar am nañ ko jox ñuy rey benn nag caq benn dëkk bu ne ñu fay rey benn nag pour lan pour def sacrifice pour daaneel président Macky sal te xam nañ leen tey ñooñu ñu ngi fi toog tey jii te ñooñu ñooy jaay affaire marabu fii ci dëkk bi di jaay naka su dul noonu di yàq réputation marabu yi te ñooñu tey xam nañ leen mën nañ leen cité mais duñ ko wax. pour pourquoi duñ ko wax tey ñoom ñoo retourné nekk fii di ci rajo bi ak ci télé bi di wax naka sudul noonu dem di langaamul ak di wax naka sudul noonu mais c'est grave c'est grave am na loo xam ne xam nañ ko mais dañoo noppi président kenn mënatu ko nax président Macky kenn mënatu nax DG Siré Dia kenn mënu ko nax lu tax DG Siré Dia kenn mënu ko mooy DG Siré Dia dafa xam li mu xam noppi mais lu bari xam na ko ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di doxal ak di dem ak di dikk ñun xam nañu fi ñuy teg suñu tànk moo tax nit ñi wut suñu. pour ànd ak DG Siraja parce que Siraja nit la koo xam ni il est incontournable fii à Thiès ci département bi kon tey ñun bu ñu jëlee intention di ànd ak Siraja di doxal ñenn ñi di wax naan diw nangam ak nangam mais loolu amul fenn te am na ñoo xam ni tey jii dañuy def jëf ju ñaaw dañuy jël ay dafa et puis bi daf ci gis nga dafa am ñoo xam ni tey jii bu may woon ne ay dóor ay dóor ay dóor dañoo day dóor ay dóoru ay dóorkat lañu ci parti ci ci ci ci biir Thiès. dañu door rek dañu war door rek xamuñu sax fiñu tek sen tank parce que ñen ñi dañuy wax rek mais ñi si bari dañuy dem tay ñi ngi fi suba ñi ngi fi gannaaw suba ñi ngi fi ñoñu dañ leen xamé légui wax mo leen déssé légui wax joju leen déssé nak fimu mu toll ni il faut que ñom ñi wax mais li ñuy wax Siré Dia yëgu ko sax déggu ko sax parce que président mo ñor Siré Dia Siré Dia gis nga Siré pour te dire président moko ñor ak président am ndam Si tu Thiès en premier tour ci élection 2019 ci loolu la des Dia di dox fi wax nii moo mi ngi doxal ñun ñu ngi doxal ngi ci programme léegi Info mi programme ngi doxal te pourtant ñun nañu ñun ba ñu paree ci législatif yi ci la ñu si rajo ne leen jóg leen ngeen commencé. mais alors euh, Babacar kon lan ngay tontu ci lu ñuy wax ni Thierno Alassane Sall bi mu nekk tullee coordonnateur communal ba léegi APR Thiès yëngootul dafa mel ni Thierno moo yoroon bagage yi. non non man fii laa dëkk maa ngi dëkk Thiès Ouest fii fi Thierno dëkk ak fi ma dëkk soriwul liggéey nañu maag moom ci liggéey bu rafet te bu may liggéey ak di ànd ak moom. ci campagne deux mille deux mille quatorze mais dama liggéey Thierno te bi may ànd dem di liggéey Thierno bi Thierno di génne bureau laa wax fii ci école bi fii. école Aliba école Aliba mais TG Siré mais moo ñu yebal ne dem leen seen gox ngeen jàppale Thierno Alassane Sall ñun ñoo ñëw jàppale Thierno Alassane Sall en commençant par man ma ñëw ne ko. inshallah allah sa biro ding ko gagné parce que man gis nga Siré fuma yabal fune dama fay am dam parce que man xamna li ma représenté bi may top Siré daf ma fekk ma yor mbolo bo xamni di liggéey ni ko am ay emploi yo xamni ñi ngi ci biir Thiès ñi ngi ci biir commune bi ñi ngi ci biir département bi kon tay ji suma ma ba di and ak Siré mais amna luma lu gis si Siré kon bi may Siré di yebal ci Thierno may ñew ci bi may parce que président dafa jël mu mu ñëpp ak jox mais ñu a ak moom mu est-ce que bi muy ñëpp ànd moom dañu ànd ak moom mais tey ba ñuy jiite ak gagné bureau te c'est la première fois muy gagné bureau te pourtant ay ndawum ñoom ñëw ànd ak moom doxal ko gagné ko ci en commençant par man télémoti le c'est vrai kon tay bu ñu président bi muy jox tierno ñëpp de ak mom kon président bu ñëwé jël tank den ko déjà ñun ñëpp ñoo am pour un ak parce que nous moy mooy président ki muy dénk fi dëkk bi xamna ko ha ah xamna ki liggéey ak ku liggéeyul euh, te mi liggéey mi liggéey tout il ku a laa jël yi jël yi jël ci association yi ci yi laajteel bépp buy mouvement boo xam ne mi ngi ci département bi ba tout récemment association Mère Teresa les catholiques là mais man la fa yebal maa fa dem. alors euh, Babacar ñu bëri dañuy wax ni séeréer du wax du génn kenn du ko gis responsable la boo xamante ne moom daal euh, campagne ba campagne rek lañ koy gis yow lan ngay àddu ci loolu. waaye mais bu fekkoon ne séeréer ja campagne ba campagne lay génn kon man tey jii du jar may lig tey jii fi ma jógee kon du ma fa jógee mais séeréer ja mi ngi ci actuellement. Siré chaque weekend mi ngi Thiès Siré doomu cees la Siré chaque weekend mi ngi cees Siré mi ngi Thiès xam nga nit ñi lan la nit ñi bu ñu xamee foo jëm doo gaaw a yegg Siré ja dafa xam fu mu jëm ba pare xam ñu muy nekkal xam ñu muy àndal tey jii am na ñoo xam ne tey ñi ngi ci parti bi ñi ngi ci parti bi mais balaa boo leen gisee Thiès xam nga ñi leen gis Thiès élection nga leen gis Thiès te c'est le seul Siré Dia c'est le seul Siré Dia moy nek Thiès 24 heures sur 24 ci weekend di fi teud di fi fanaan di tok di wo ay militant di wo ay responsable di tok di waxtan ak ñom ma ngi ni suma ma fi ci mom la jëm parce que lan dafa am thème bu ñu wara tek mak mom pour xol programme bu ñu wara déroulé semaine prochaine euh, ci ci mois bi xool chaque semaine mi ngi fi di jël ay militant di jël ay responsable di toog ak ñom di waxtaan ak mais lool su amuloon kon du ngeen dégg mais dëkk bi loy dégg Siré Dia Siré Dia ngay dégg bépp fépp foo jëm Siré

ci walu social ak taxawayam ak yaram ak disponibilité gis na ni mom dal lañ wara jël commune bi jox ko ko mu coordonner commune bi yeen lan ngeen di addu ci lolu way lolu xam nga lolu lolu du débat man lolu jappé wuñu ko débat parce que lolu bo ci débat da ngay may da ngay may ñuko def da ngay may ñu ñu koy wax da ngay leen may buzz te fi ñu toll ni ñun romu nañu fofu ñun romu nañu fofu tay ji gën wal ñi fi tiyé di wax naan diw diw di tay sire mo leen dugal ñu liggéey si sire mo leen jox fos ñu liggéey bañu toggé di taxawal kenn jëlu leen te fu ne dem nañ fa mais c'est le seul Siré Dia moo leen jël embauché leen jël leen dugal leen kon tey ku taxaw di wax lii Siré di wax lii di ko sànni mais loolu jaxase pa jaxase affaire la jaxase affaire ba pare beneen bi mooy dafa am ñu war a wax ak ñu warta wax nee naa APR dafa am ñoo xam ni xam nga lu seen rôle dañuy woo dem di dóor rek maanaam bu teyee ñi ngi fi bu subaa ñi ngi fi bu gannaaw subaa ñi ngi fi bu gannaawaat subaa ñi ngi fii ñooñu jaruñu par exemple di di di di di demalante ak ñoom ñun li ñu war mooy xam nga lan mooy ñun ñu ànd ak ki nga xam ni moom la ñu àndal ki nga xam ni moom moo ñu jël gis nga gis nga gis nga gis nga lëg bu lekkee arom na ko gërëmee coy lëg bu lekkee arom na ko gërëmee coy si Dia tey jii ñu koy jël di ko wax ñëpp dugal na leen fu ñu liggéey jël leen embauché dugal leen fu ñu liggéey mettre leen ci disposition yi bien te pourtant ñii ñi mosoon ànd ñëpp yàgg nañ ci politique mais kenn mosu leen jël kenn mosuñu amusi mosuñu xam chéquier mosuñu xam dem fayee ko par weer mosuñu ko xam kon c'est le seul sérieux moom gis nga dafa am ci ñoo xam ne bu fekkee ni dañuy fay ñenn ñi pour ñu di leen waxal jaru ko parce que fii li fi nekk xam nañ ko ñun ay ndawum si rajo lañu ñun duñu nangu kenn koo xam ne suñu leader yi di ko jël di ko tutoyer donc kenn mënu ko tutoyer parce que moom li mu fiy def def nañ ko gis nga président bu amee ku muy laaj xam nga kan lay laaj ak bu amee ku muy nga kan lay teg day laaj les bu ñu ngi fii sëriñ saa ngi fii asus mais président association yaa ngi fi tey jii président mouvement yi ñu ngi fi tey jii président avec yi ñu ngi fi tey jii renseignement généraux yi ñu ngi fi tay président bu amé kumuy muy laaj day laaj président ku mu ne nañu jitu ci top ci ginnaawam ce qui est sûr et certain mooy que dañuy top ci ginnaawam parce que mom le président parce que si le président moo ñor lu mu ne moom la moom la lu mu ne du mom du mom lu tax mooy kani moom mbébétam yépp Siré Dia mooy président ñoom mu amaat deuxième mandat en deux mille dix neuf premier tour Siré actuellement loo koy wax te waxoo ko loolu moom tey ndar Saint-Louis pré Siré mi ngi teeru teeru na président Saint-Louis ay ndawam dem nañ Saint-Louis teeru ci président dam leen seetaan télévision bi mais loolu lu tax moo ko ñor moo ko ñor dem na ba ne même les régions mom fo deuk ak fo gox bo nek ak bo région bo nek ak région bo Si président gagné deuxième tour euh, deuxième mandat premier tour motax fu nitam xam président président bu de dem ba da koy top ak pour pour motiver pour ñu président alors euh, Babacar euh, am na ñu bari ñu ngi wax ni euh, Thiès gis nañu euh, politiciens jog nañ Idrissa Seck mu ngi taxaw di dérouler gis nañ tamit opposition bi ay PDS ak yeneen ak yeneen est-ce que loolu amu leen ci tiitaange. non ñu ci am tiitaange parce que moom benn xam nga moom jarutu la calculer pourquoi jarutu la calculer mooy que ni man duma dem ba nekk ba nekk nekkoon li ma doon ñëw encore di topp ci ginnaaw nit xam nga loolu dafa nekk loo xam ne tey jii jarut a calculer parce que bon euh, maanaam. dafa dellu ginnaaw moo tax mënuma ci mënuma ci débat Thiès Thiès laa wax cees dofatuñu xam nañu fu ñu teg suñu tànk sa Seck moom ci boppam li ko war defu ko Siré Dia jóge fee ñëw def li ko war ba defaa leen ñeneen ñu ko war ba ma fi nekk di fi toog di yor nomba tànk mais boobu mënoon na dimbali waa Thiès ñi ko toppoon mënoon na leen dimbali wax ma ñi ko toppoon depuis lor ci lan lañu ñu nekk ba léegi ñu ngi ko topp amul njëriñ te Thiès ko am njëriñ lañ soxla Thiès ko am njëriñ lañ soxla li mu ñàkk njëriñ moo tax département département mu ñàkk ko li mu ñàkk njëriñ moo tax Thiès actuellement ñëpp bedd ko bàyyi ko parce que lu tax mooy que ni amul njëriñ te ko amul njëriñ kenn du la topp bu amoon njëriñ kon dëkk baa ngi lëndëm kurus kenn mënu ko réglé problème yaa ngi bëgg bëri ci dëkk bi fii te pourtant loolu problème mairie bi la maire bi la barki démb gis ngeen fii fii vote vote voté budget bi gis ngeen lu mu def jël ay militants bi pour woo leen waxtaan ak ñoom ne leen carrément bu kenn voté taala loolu du blocage loolu lépp c'est blocage kuy bloqué réew mi kon loo koy doyee sañ nga ko voté sañ nga ànd ak moom. alors euh, Babacar ñu ñëwaat tuuti gis nañu li ngay def euh, investissement yi ngay def est-ce que Siré daf la jox ay moyens yi tax nga koy def wala est-ce que am na lu Siré dig loo xamante ne Babacar ci loolu lay daw. nga Siré. dama koy sonnal dama koy ñàkkal te li tax ma koy defal li muy jëflante ci biir waa Thiès ndax man sama gox am sama dëkk am man aw ma lu dul Thiès gis nga bi ngay tudd léegi Idrissa Seck gis nga su fekkoon defoon na lu def ba mu fi ba avant di ñëw kon dëkk bi ànd ak moom waaye Siré dafa ñëw xool kuy taxawaalu xool kuy ànd ak moom di liggéey xool ñi nga xam ni tey ji sonu nañu ñoom ñëpp mu jël leen xool ay buntu mu dugal leen fi ñuy liggéey di tedd di tero seen biir kër kon kooku tey même bu dul man par man lu ma ko mën a fayee ma ñàqal ko sonal ko ndax li mu def biir Thiès si dafa defarat Thiès si la tey amul benn quartier boo xam ni yaa ngi fa muy jeune muy góor muy jigéen te si la teralu la si la tey amul lenn loo xam ni te Siré yàlla da koo teral avant sax président muy xam muy nekk muy nekk président Siré yàlla da ko teral avant muy nekk président moo tax man bi ma gisee Siré def geste yi cees Thiès damaa ñëw sol sub ni sama mbubb sol sama mbubb boo xam ne mbubb liggéeyukaay la ma fas yéene ànd ak Siré di ko liggéeyal man mos leen ma gis may politique fenn ci Siré Dia ngeen ma mos a gis mooy politique parce que ki li ko jar ki ko jar moo ko jar ma mu toog. dem Tiwaawan ànd ak suñu sëriñ bu baax boobu ñuy jooy noppeeku ñu muy sëriñ Abdul Aziz Al Amin mu ànd ak moom jël léppam jox ko sëriñ bi ñaanal ko ci teg mu teg euh, tànkam ndax la ndax Cees gi mu xam ne jël na ko téye ko di dimbali doomu Cees téye ko ànd ak waa Cees man ci loolu laa sukkandiku jël sama lépp fas yéene ko liggéey ak Siré ndax Siré Dia kat ku jar a jàppale ku jar a liggéeyal la bu fekkoon ay millions rek la bu fekkee leneen la leneen la mais fii proposition ba gis nañ ko fii fii am na ci ñenn ñoo xam ni mais liggéey ak ay nitu Siré Dia mooy seen intérêt sax mais fexe nañu di jéem a di démarché nitu Siré Dia yi mais pour am leen yombul parce que Siré nit la koo xam ni euh, euh, euh, doo ko jàpp ba pare di ko bàyyi wóorul sax ndax lan ndax nit la koo xam ni tey ji boo ko jàppee jàpp nga gor jàpp nga ku baax jàpp nga ko am dignité jàpp nga koo xam ni ah ko and ak mom do, do daanu looloo tax président mi and ak mom du mës a daanu Thiès te du mës a daanu mukk ci élection yi ñu nii. Hmm. alors ba wax ci beneen wàll bi euh, ñu ngi wax na ndaw ñi parce que dañ lay gis ci ay activités sportives ndaw ñi am nañ jafe-jafe fii ci biir Thiès pour ñu mën a génnee sax ay talent yu bees ci wàllu infrastructure sportive euh, stade Lat Dior boobu léegi mu ngi nekk en suspense ñu ngi ne nag léegi dinañ ko jébbal ci 2018 yéen la ngeen di ñaax président de la république euh, ci wàllu yooyu. président yaakaar naa ni initiative bi mu nga xam moom la jël ci 2018 bii. ak mbébét yi nga xam ne moom la ne dina ko def du wax dara lu mu dul def président lu mu wax dina ko def ndax li mu war a wax ak ay ministre wax na ko ñoom woo na leen ku ci nekk ñaax na la woo na leen ku ci nekk waxtaan na ak yow woo na leen ku ci nekk juñu na la nee na leen liggéey moom a ñor dem leen seen gox ngeen liggéey. stade Lat Dior bi yaakaar naa ne ñun Thiessois yi ñun ñëpp ñoo engagé wu pour lan pour mu pare ndax suñu activité yi bëri foofu la ñu ko mën a defaree te xam naa ni président loolu nga xam ni moom la wax dina ko def ndax dina pare te stade Lat Dior mu pare ñun mooy suñu mooy suñu avantage mu pare ñun moom la ñu soxla mu pare sax moom la Sénégal sax soxla parce que boo xoolee ñi ngi jógee fii dem ba Mbour di fubali te amaana mënoon nañu des fii suñu suñu fii ah beneen bi mooy. bërki Demba Ndiaye rek ci làmb gi nga xam ne moom moo amoon fii gis nga li fi am ah li fi am engagement boobu nga xam ni DG si Dia jël na ko ak li nga xam ni moom la moom la moom la def ci làmb gi loolu lépp dafa bokk ci loo xam ni président la ko defal ah donc stade la joor mu pare yaakaar naa ni moo gënal Ceesuwaay yi moo gënal sax sénégalais yi moo leen gënal moo gënal moo gënal ñépp man mi moo ma gënal te xam naa ni mbébét la boo xam incha allahu taala dara dina yëgg bu yàlla Mhm. alors euh, li nga xamante ne rek toujours euh, tey moom mooy liggéeyu Babacar Diallo ci biir euh, Thiès ci peggu Siré Dia directeur général bu post mooy massifier li nga xamante ne rek mooy APR fu mu toll nii bëri na ñuy wax mouvement de soutien yi bëri nañ ci biir Thiès ba ñu ngi sax xool naka la ñuy def rek seen ànd ak coalition benn Bokk Yaakaar yéen yan kàddu ngeen ci am. pare nañu mouvement de soutien yeeg ñëpp pare nañu pour ànd ki nga xam ni moom la président di jël di jiital fii ci Thiès pour ànd te président man gëm naa ni amul kenn koo xam ne parce que cin bu noree neex bu baxee xeeñ te lii bax baax na te mu ngi xeeñ te lii xeeñ fu muy xeeñee mooy que ni xam nañu ni kenn la koo xam ni moom li mu fi def kenn defu ko fi li mu fi liggéey kenn liggéeyu ko fi li nga xam ni moom la fiy def ci département def ko ci ci région bi def ko ci commune bi kenn kese la dong kot muy le DG de la poste monsieur Pape Siré alors euh, Babacar ñu bëgg nga leeralaat ñu toujours ci li nga xamne rek mom moy ñenn ñi nga xamne ne euh, wax nga sank jënd ñu tolo fukki nak ak ñaar di ay sëriñ doon contre président Macky Sall est-ce que ñu dañuy continuer diko contre wala dañuy continuer diko bluffer dañ bëgg nga leral foofu. wa mais ñoñu xam nañ seen bopp barki Demba Ndiaye ñoom ñoo nekk fi di wax barki Demba Ndiaye ñoom ñoo nekk fi di wax xam nañu seen bopp. xam seen bopp. ñoom ci opposition lañ bokk wala dañu ànd ak. bi ñoom ñoo leen jox xaalis bu doy xaalis bu bari lañ leen jox lañ leen jox boo gisee ñuy wax nii dafa am lu tax dafa am lu tax ñuy ah. wax nii dafa am lu tax ñuy wax boo gisee ñuy wax nii dafa am lu tax ñuy wax te li tax ñuy wax parce que xam nañu bu baax opposition bi jël nañu xaalis bu bari jox leen pour lan pour ñu daaneel président Macky Sall te loolu mënul nekk yàlla na day àtte pour lan ñu dem dëkk bu nekk pour rendi fa benn nag. xam nañ leen te pourtant ñi ngi fi barki démo ñaa ñoo nekk di rëy Lamine di wax ni ci biir ci biir ci biir télévision bi di wax nii te ay xale yu ndaw lañu pourquoi ay xale yu ndaw lañu ñoom ñoo def loolu. alors euh, li nga xamante ne rek moom mooy tey seen taxawaay mooy président Macky Sall am euh, deuxième euh, mandat au premier tour tey defe naa moom mooy mission bi ngeen am tey ci commune bi kan ngeen xalaat ni buñ ko jiitalee liggéey bi dina gën a mën a yaatu. mais loolu commune bi kay gis nga wax di waxaat sax amul kenn koo xam ni mën nga kaa jox fii ci commune bi du kenn kenn kenn kenn kenn ku du Siré Dia nga ko mën a jox DG Siré nga mën a jox parce que DG Siré moo dee ci xolu nit ñi ñu wax ko ñu bañ ko wax gis nga ñiy wax ñëpp genn wàll gi ñuy wax ñëpp soo gisee ñuy wax du dara du dara ku ci nekk nag gis nga ku ci nekk xam nga sa bopp ñu ci nekk ñuy wax ni xam nañ seen bopp de moo wax la ko tey ji tey ji bu subaa ñi ngi dem fële bu gannaaw subaa ñi ngi ànd fii bu gannaaw subaa ñi ngi làqat ci ruq bu subaa ñi ngi daje fii ñooñu dañu nekk ñoo xam ni bon euh, ñoom loolu mooy seen liggéey loolu daal mooy seen liggéey dañuy dem di yàq rek te yàq googu du séré kenn mënu ko yàqal fii mënu nekk voilà Babacar que euh, mooy rek li nga pour askan Thiès Sénégal détermination bi président Macky Sall ci vision bi am ci PSE ak rek euh, li nga Thiès bi nga gis lancé appel mooy ñun daal ñu ngi confiance ci ki nga le directeur général de la poste monsieur Pape ndax gis nañu and bi nga xam ne mi ngi ko ànd ak président de la république gis nañu liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey le président de la république ci commune bi di ko def ci département bi di ko def tout le sénégal kon kooku ñun ñëpp ànd nañu ak moom jël loxo teg ko ndax président wóolu na ko te it nit ñi bëgg nañ ko te président ku nit ñi bëgg kooku lañ bëgg ndax élection bi mu euh, euh, tête départemental bi nga xam ni yaakaar naa ni ko ci te gëm naa ni su ko ko joxaatee it incha allah du ko di te ni mu ko gañee woon noonu la koy gañee fii incha allah ci élection yi ñu dipli muy 2019 en premier tour te amuñu kenn yaakaar amuñu kenn koo xam ni yaakaar nañ ko ci muy kan muy la directeur général de la poche monsieur Pastore Dia. ala ah, ma doon sa kàddu yu mujj. sama kàddu yu mujj mooy ñi ngi delluwaat encore di jaalewaat xalifa yi nga xam ni ñoom ñoo génn àddina. di ko di leen jaale ba ki mujj génn àddina muy Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké muy koo xam ni ku baax la di leen ko jaale di leen jaale sëñ Abdou Aziz Al Amin di leen jaale it ki nga xam ni mooy sëriñ Cheikh Ahmadou Tidiane Sy waaye di jaale it xalifa El Hadji euh, euh, sëñ Abdou Aziz Ndiéguène ndeysaan di kilifa gu baax ñu ngi koy jaalee àddina yëpp di ko jaalee le président Macky Sall di ko jaalee le directeur général de la poste monsieur Pape Siré Dia ñu ngi leen koy jaale ñoom ñëpp di leen ko jaale di jaale Sénégal yëpp di wax ni it wax dëgg yàlla euh, euh, euh, mag ñu baax lañu mag ne lañ loo xam ni ñu gën a téye réew mi lañu te ñoo ñu fi jóge ñëpp ku ci nekk tey jii. taxaw nga gërëm président de la république ñaanal ko yàlla ñaanal ko li nga xam ni moom loo yéen bi ñu ko dénk nii mu oyof ci moom kon nag yéen bi ni mu oyofee ci moom ñu ngi ñaanal président de la la république li nga xam ni mooy mbébét bi nga xam ni moom la DG Siré Dia bëgg ci moom yàlla defal ko ko mu gañe ko muy élection yi nga xam moom la ñu dëpp muy deux mille dix-neuf en premier tour di ñaanal aussi jàmm am ci réew mi di ñaanal aussi di leen ñaanal yéen waa Thiès Info ñu ñaan ngeen yor télévision yor seeni i rajo yor seeni lépp ba nga xam ni tey ji bu amee dañuy def émission yi en direct nit ñi du ko seetaan salaamaaleykum wa rahmatullah mbokkee xarit noonu seetaan dañuy dellu suñu émission homme politique ñu doon dalal Babacar Diallo nekk kenn ci ay lieutenant yu directeur général bu poste di euh, Pape Siré Dia di jox dig daje ci beneen numéro incha allah